أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñuy déglu ak fu ñu mën a toll rek ñu leen di ñëw di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di leen ziyaara di leen nuyu di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko yàlla yàggal barab bi di sëñ Maam Mor sëñ Motulaa yàlla na ko gën a dëgëral ci ginnaaw ay magam ak ay rakkam ñoom ñëpp yàlla na yàlla gën a taxaw ndax bu leen taxawoo rek njaboot gi e, ñu mën a jiite njaboot gi taxawaay yi ñu am e, dana tax njaboot gi itam nekk ci li leen di jëriñ tey ak ëllëg. di nuy ñëpp di leen ziare di nuyu al imam sëriñ Mbàkke Abdourahman di ko ñaanal moom itam yàlla gën koo taxaw bu baax a baax a baax euh, yàlla nit ñaa ngi jariñoo bu baax laaj yi nga xam ne kenn ko ci ne yaa ngi laaj laaj boo xam ne xëy ñu la koy tontu ci tontin wu leer woo xam ne xëy na soo amutoon ku mel ni moom mën nga caa jaaxle ci sa diine ndax laaj euh, am na solo waaye ñu tontu lay tontu bu leer boo xam ne ku koy ki koy tontu te da ko teg ci xam-xam ak lu leer doy na sut ñu koy faral di fàttali itam xam ne ngir mi nga xam ne ci lay tontoo di mazhabu al imam malik euh, te sëriñ bi dénkaane woon ne nañ ci tënku xëy na ngir yi bari nañ lool waaye tey ngir moo xam ne yépp itam ci sunna lay tege waaye E, kenn ku ne sañ naa tënku ci benn ngir surtout communauté bu mel ni communauté yoonu murit xëy na ngir organiser ak tege ak e, nosu e, ñu nosu ci benn ngir nga xam ne boo laajee benn laaj benn tontu lañ lay tontu wala tontu dana jege moo tax ndax bu dul woon loolu dana wute yi dana bare bare ci yenn yi xëy na kon imaam dañ lay bàyyi rek nga nuyu mbokki auditeurs yi UCAB FM 103 point 5 di nuyu ñëpp rek ñi ñuy diglu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 di nuyu mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi ànd ak ñun jotaay bi saa yu waxtu yu jotee ci béréb bii di di Ucab FM ni ko waxee di ziare kilifa yëpp di leen ñaanal jàmm àddina ak laaxira di sàkku it ñaanal hmm. di ndokkeel mbokk ci li yëpp it ci weeru rajab yi teru. Hmm. bokk ci al ashhurul xurum. Hmm. ñeenti weer yi sunu borom wormaal bëgg nit ñi lu baax luñ doon def ñu di ko ci yokk waaye luñ doon moytu ci safaan ñu gën ko moytu mm-hmm. ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla lim amu ciw yëpp yàlla nañ ci yàlla jotale waaye jaare fii fegal ñu mboolem yi nga xam nii mu ngi dal ci kaw bopp ci liñ ñi àddina bépp jërëjëf al imam kon ñu euh, duglu jublu ci euh, tonte di nuyu baax tam suñu technicien bi wax dëgg yàlla macha allah xam ne liggéey bi bu mënee amee nii mu amee Eh, ci seenu jàppandal lay doon di leen kon ci liggéey bi lañ bokk ñoom yàlla yàlla ñoom itam gën a taxaw imaam laaj bu njëkk bi eh, dafay laaj nee na imaam lay war a taxaw bu dee eh, jullee góor jullee ab néew bu dee néew bi néew bu góor la fan lay taxaw bu dee néew bi néew bu jigéen la it fan lay taxaw hmm. imaam bi koy jullee waaw ci masabu am malik dañoo bëgg ki jullee bu dee góor la imaam taxaw fi tolloog ndiggam mhm. tànd ko tuuti mhm. waaye du jar mu koy sori loolu nag mhm. boo defee ñu sàppe sa ginnaawam sàppe it lu mu néew néew bëgg nañu man ñett ndax asar bu saxal ne ku ñett timu ci jullee ñu jéggal ko euh, bu dee jigéen nag dañuy bëgg imaam taxaw fi tolloog mbagg yi solo wagg yi dañuy taxaw nit ñi sàppe ci ginnaawam xadis bi wax ne yonent bi alayhi salaam jullee na jigéen taxaw fi tolloon ci masab bi niñ ko dégg ñu mooy booba satr amutoon ñëw nekkoon satram dox diggam ak saa bi dañ ko gis waaye fi nga xam ne daa am ko muur am luñ ko dugal moo tax li ñu bëgg mooy ki koy jullee taxaw fi tolloog ay waggam mm-hmm. bu dee góor nag mu taxaw fi tolloog ndiggam mm-hmm. ak jërëjëf euh, al imam loolu leer na kon di nuyu bu baax a baax suñu alaaji ñang suñu technicien yi yàlla yàlla gën a dëgëral moom tam euh, laaj ak ñaareel bi kii nee na ki nga xam dafa bëgg a julli dafa bëgg tukki boog ginnaaw julli àjjuma te mu xam ne bu fi tukkee daal dana balaa àgg timis dana jot wala tàkkusaan dana dana dana jot ndax nee na mën naa julli tàkkusaan ginnaaw bu jullee tisbaar ba noppi waaw xam nga li ñuy tuddee boole julli dafa am ay sabab bokk na ci tukki ñu wax ne nit ki bu tisbaar jotoon wala timis mu ne ci barab boo xam ne daa fas yéene bu sëlmalee dem te fa mu jëm bala fa àgg waxtu wa ca topp muxtaaram ak daru yëpp dina jeex bu dee tisbaar daal fa àgg te timis jotut mhm. bu du fa àgg te fajar jotut mhm. kooku may nañ ko bu jëlee tisbaar bu sëlmalee teg ci takkusaan mhm. loolu la ñuy tuddee jamono taqdim boole boo xam ne takkusaan la ñuy jiital julli lu jiitu waxtu mi nga xam ne moom la ñu xamoon bu dee timis mu julli timis bu sëlmalee julli gaye dooru dugg ci lañuy muy dem loolu nag mooy bu ko leeree ne bala fa àgg waxtu jeex muxtaar mag daro bi waaye bu fekkoon ci muxtaarum takkusaan lay àgg du mm-hmm. sañ a julli takkusaan day bàyyi bàgg julli bu fekkoon nag ci baroor yu takkusaan lay àgg mm-hmm. foofu lañ koy tànn loo it bu neexee jiital ko te bàgg gën mm-hmm. ndax ginnaaw loolu waxtoom mooy bu cosaanam la kon néeg bàgg julli ko ci daroor yëpp xam nañ ne ngànt moo tax mëntu na julli ci loolu nag jullik tisbaar ak jullik ajuma ñoo ci am ci mosal bi waaw kii nga xam ne dafa ne ci dëkk bi euh, bëgg su ci sëmale ajuma dem Mhm. waaye xam na ne bu jógee bu sëlmalee ba jógee si moom fa mu jëm du fa la timis jotul mhm. man na bu ñu sëlmalee jumaa ji àjjuma mu daal jóg jokk ci takkusaan daal di dem loolu timis it mën na ko def noonu loolu ci masab Maalik xajalewuñ xëy na yeneen mosaay bi am na yenn wax waaye ci masab Maalik moom jumhur loolu lay wax mhm. ñoom dagan na boole àjjuma ñuy dagan boole tisbaar ak takkusaan dagan noonu lañ mën a boole àjjuma ak takkusaan jërëjëf kii dafay laaj nee na bu fekkee ne xaswatul badrin ci ramadan la nekkoon ndax nee na jullit ñi la ñoo wóoroon wala wóoruñu woon loolu de ahadis yi ci rot li muy dëgëral mooy jullit yi wóoruñu woon waaw bokk na ci xadis boo xam ne ci sayyiduna Umar radiallahu anhu la jóge boo xam ne xeex nañ ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaari xeexare yoo xam ne yëpp dañoo dogoon mm-hmm. mooy Badar ak Fat Fatu Mag mm-hmm. am benn boo xam ne Abu Saïd al-Xudri moo ko nettali ne ànd nañu yoon ci yëpp xare jëm ci ci yoon ba wàcc benn barab mun nañu mu ne soreetu leen seen noon de dog de moo gën moo gën a ci ngeen ëpp kàttan mooy hmm. ko rox sala kon ku bëgg a dog ba mu ko defee ñenn ñu dog ñenn ñu woor hmm. ba mu dee bu yàgg ñu wàcc xat mu ne suba moom ngeen nar a àgg ci noon bi hmm. dog moo gën ci yéen kon dog leen nga xam da leen digal ñu dog xam day mel ne daal li la nga ci waxi mooy rasootu badar al kubra ak fatu makka dañoo dogoon ndax hmm. dañuy wax ne bu fekkee ne jàmmaarloog noonu la hmm. jàmmaarloog noonu la moom nit ki mu dog ki lay ëpp kàttan hmm. kon foofu dañ ko may mu dog léeg-léeg sax day war ndax mu mën a jàmmal noonu la leen lay jur bu doon tukki yi rek tukki xam ne tukki cosaan yi rek nga xam ne aada yi la moom dog dagan na na waaye a ah. ndax wa an tasuumu waaw kii nee na wirdu màquus wala wirdu rek ndax nit mën na koo di def sans julli waaw bu fekkee daa jubloo wax maanaam daa mënta julli nga xam ne mhm. dafa laabut daal wirdu moom laab chartu kamal la ci mhm. waaye nekkut ci chartu sexa mhm. maanaa li tax jaamu gën a mat waaye boo jàpputoo nit boo wér dana tee mbaax ne soxna kon dëju saat kon soxna su amee ngànt du tee mën naa mm-hmm. mm-hmm. ok jërëjëf kii da nee na ndax rey xarum séeréer lañuy wax waaye xanaa du séeréer xanaa xarum séeréer mm-hmm. ngénte waaw séeréer da aw melo la woo xam ne daa mel ne fii ci suñuy aada dañuy gaafal melokaan wi waaw ah. di wax ne buñ ko rey wóorul nangam waaye ci sariya moom xar mu ñuul mu weex mu xonq ak mu seer rey melokaan yi joxe ci xar mi ngir mat matu tudd hmm. wala mat tabaski mu doon seeral bokk ci hmm. xëy nag aada yi hmm. mën naa am xaw ma seeral yi loolu moom <laughs> ñoom ñoo koy wax yu mel noonu la ñuy wax sariya moom waaw waxut ne bu xaar mi melee nii buñ ko tabaski wala buñ ko génn ko bàyyi ci aada yi ak kii nee xaw ma ndax dagan na weccoo diggante dollar ak bitcoin which which xam waaw bu fekkee am na xeetu monnaie boo xam ne monnaie électronique la bu ñuy wax day wax dëgg yàlla monnaie boobu biram dëgg-dëgg dama leerul waaye li mu jot a xam ci gëstu yi ma am moom hmm. ñu yëngu ci wàllu koom-koom sax dafa mel ne anduñ ci ndax dafa mel ne ay groupe ay groupe yor yoo xam ne benn nguur xaaru leen sukkandikuñ fenn hmm. ñu ngi doon boobu daal créé ab monnaie boo xam ne ni dañuy ci la ñuy ñoom dëgg-dëgg dafa mel ni amul benn saraaya boo xam ne buñ xam ci àdduna te xam nañ ne moo na jële sépp day mu ko taban nii am wéeruwaay boo xam ne am na xiima buñ xam ne moom la tollool ñëpp d'accord ci mhm. waxale àdduna bépp foofa dem xam na ne lii la ba dee ci banque yi mag yëpp fekk ko fu ñu nangu ko mhm. loolu ñu xam la dafa mel ne eh, kii boobu noonu mhm. eh, loolu àggu fa te réew yu bari sax nu wuñ ko jàpp te jàpp naa loolu nag. waaw bu leeroon daal ne eh, la buñ nangu la. Mhm. moom ni ñuy wecc ko CFA mhm. ak euro. ak dollar ñoo yem su boobaa. Mhm. waaye na fekk nag boobu. kii nee na alxuraan dafa wax ne man lam yaxkum bi ma anzalallahu fa ulaayka humul kaafiruun te ñun day mel suñu xukumaat yi day ni léegi lan mooy responsabilité état yi ak jullit ñi tam lan mooy ci responsabilité. ci xam nga suñu boroom moom lim santaane mooy ñu àtte woo ay yoonam waaw mm-hmm. wax na ne wala lam yaxkum bi muslala fa ulaa'ika humul kaafiruun ay wax na ak faasiquun wax na euh, zaalimuun kon euh, lu baax bàyyi fi ndax li yàlla tër mooy li mm-hmm. ndax yàlla moo bind moo xam mm-hmm. liy firndeel ne leneen baaxut it mooy bis yàlla sàkk li ñeneen ñi tër nga ci gis ay njuumte ndax nit mën matut kon mënta tër lu mat tey mm-hmm. làmbut rek mm-hmm. yàlla ñu xam nag tey xam démb xam ëllëg mm-hmm. la mu tër mooy li baax kon ki lañu war a jaar aw xeet nag buñ leen nattoo yàlla nattu leen ñu ëpp leen doolee di leen àtte ci leneen loolu lañ ko jàppee fitna di ñaan yàlla mu tegg ko ak di dox ci jëf xanaa kenn ko am nga masuul yëpp kem sa fa nga toll kem fa nga toll euh, ci ci ci ci bu dee ki toll ci bañ fa na ko bañ ñëpp xam ne lii ñu ko attan neexu ko loo xam ne it forcé wuñ ko ci yëpp bëgguñu di ko def. Mm-hmm. ci misaal fii ci Sénégal am na ci yoo xam ne nangu nañ ñuy def ko seen i mm-hmm. boo demul tribunal kenn du la fa atte. Mm-hmm. parce que miraas nañ koy atte ci tribunal teguwul ci Sénégal. waaye nag ku fa demul duñ la fa yóbbu. loolu duñ la forcé eh, bu ci bu ci yóbbu. bu ci dem yow. demal ko xam loola mu atte la ci loolu islam sax naa da nga def ko. te tam waaw nga xam ne buñ la ci yóbboo nag. mu naqare ci sawal xam ne bëggoo ci woon a dem mm. su boobaa a ci yóbbu mën naa mooy gàddu bàkkaar ba ci defi nag ñëpp war a jàpp it nag fexe ba doxal lislaam ndax fekkee dañu jàpp ne démocratie la mm. li li mbooloo mi ëpp bëgg la ñu di attee bu njàngalee nit ñi diir yar leen bañ xam ko ñëpp danañ taxaw ne ci li nit ñi ci nit ñi mm-hmm. bu nit ñi nee nañu àgg ci diine dañu war a fekk si mm-hmm. xam naa yaraat nit ñi sëñ baax na sëñ Ablaye at ma ne mës ko fekki waaye day mel ni réaction amut bu baax boobu hmm. bu ëpp dafa am loo xam ne hmm. yeneen noonu ñoo ragal loolu nit ñi bañ ragal diine waaw ñoom bu ñuy wane diine rek jaasi la ñuy wane ku ñu dagg loxoom ku njaalo ñu dagg sa bopp hmm. ah, loolu la ñuy wan ñi boo ne diine rek ñu waaw ñu génn nit ñi loolu jàpp diine jaasi la te diine mooy maandu maandu waaw wal adlu kullu diine mooy yiw Mm-hmm. ndax yooyu ñuy wax noonu bu diine taxawee dootul am. waaw ah, ndax dañ ko ndax sàcc du am dañuy dagg loxo kenn. ah waaw. du sàcc ni mu taxawee te bu sàcc amul nit ñi seen alal ñoom. Ah, ok ñëpp am jàmm ñëpp du ci jàmm. Mm-hmm. nit ñi li ñu wutoo si yoon jikko yàqu yi boo am. Mm-hmm. kon yooyu ñu ragaloo nit ñi wan ko nit ñi mu mel ne yii ak ñaawteef la yoo xam ne yow mënoo ko ñàkk def te boo ko defee diine dagg sa dagg sa baat. kon nag ragalal diine. Ah. loolu mooy li nga xam ne war nañ cee nit ñi bañ yeewu ci. ay pexe bu ñuy wax maandu diine rek maandu. ok. mooy yiw mhm. euh, mu ëmbal nañ njariñ yi mhm. ci diine kekk ci keppaaru diine képp la nit ñi mën a dund ci jàmm mhm. ñaar ñu dajee xamante wuñ nekk benn diine rek li mën a boole ay race amu fa ay langue yu wuti amu fa ay xeet yu wuti amu fa bokk dëkk bu wuti amu fa kalimatu laa ilaaha illaa moo leen boole loolu la buñ ci yaroon nañu tàggal leen di dund gu neex la ñu dund loolu suñ mat naa xam nga day mel ni diine moom bu ne alal yi lay lay lay ñoŋal ak bakkan yi ak xel yi ak askan yi ba tax mu ne nga xam loolu lépp ci nit lay dellu si waaw maanaam bu ñu nee ku sàcc ñu dagg loxoom xanaa ku yuux da bëgg a sàcc ndax kenn du forcé wala nga nga ne nga sàcc waaw loolu moom mat naa waxtaan ki mel nii yéen moom nañu leeral li ñu ci côté boobu noonu ndax nit ñi foo ne diine daal attib diine daal li jëkk wax rek mooy tey tey nit ñi dee tey ñu dóor leen tey ñu rey leen tey nangam tey wax dëgg yàlla demewul noonu te xamul ne ci keppaaru diine mhm. tumaanke du am mhm. lislaam boo yoroon ñaar hmm. am ku ne fii soxla benn bi teew sa aju jëmm gu ci da nga ko war a jox hmm. ci jihaad dañ la ànd ñuy wari fas boo yoree ñaari fas ñu ne benn fas yor ko bu ci des joxal wut fas moom sab tool hmm. am sab teen boo xam ne daa fes dara ndox waa ji teenam toolam na yàqu dañ lay wax ne la jox ko ndox bi suñ ko mënta may jaay ko sa fay la waaye amu sañ-sañ ci téye sam ndox toolam di yàqu te nga am ndox moo ko jox loolu génne mooy ne kon tumaanke du am alal joo liggéey ba am ci àq ñeneen ñi am nañ ci ñi mm-hmm. lay sant ko jox miskin yi génne ak ginnaaw génne asaka mm-hmm. dimbale say bokk dimbale dimbale ñi loo am bokk nit mm-hmm. yu bari yu ba yoo xam ne boo ko defee ci bàkkaar ñu ne la génneel sarax ngir yàlla jégal la ah. kon jariñeen nit ñi ngi yàlla jégal la loolu mooy diine mooy bu ñuy wax diine ju bàyyi xel nit nit te foofu yi sax nag weesu na weesu na nit maanaam borom roo la diine it ay salaam bis wax na ne mhm. fekk daa nettali ci lu jiitu woon nit koo xam ne ab kël bu la romb mhm. dafa dox ci àll ba mar ba romb benn lu mel nag seyaan bu mhm. fexe bu dugg ci biir naan ndox génnaat bi mu rombee kël bi kël bi di génn lamañ wi di mu wax ci xelam ne li ma jàppoon de muy mar wi moo jàpp jaay yàlla ji ba di mu la summi duggaat ci seen ba te ci seen seyaan bi duy ndox nandal kël boobu alayhi salaam nett li ko daan ne ci la ko yàlla jéggale saxaaba yi ne ko ah kon mala yi mm-hmm. tuyaabaa ngi ci mm-hmm. mala yi tuyaabaa ngi ci mm-hmm. mu ne leen fii kulli kabidin ratbatin ajr resu yu tooy am resu yu moo xam resu nit moo xam resu njugub la la boo ci defee yiw yàlla am tuyaaba te mu jë nee na jigéen dem na sawara janaat la jël yeew ko jox ko mu lekk bàyyi ko mu fari muus muus mi dee yàlla mm-hmm. mere ko tàbbal ko sawar ndax diine ji mel noonu mm-hmm. kuñ koy ragaloo ñu ngi lay tooñ ñu ngi lay tooñ mos bu mm-hmm. di ñu xamoon am na ñoo xam ne bu ñu ko xamoon dugg ci waaw te it dañ xam ne moom mooy seen njëriñu tey mooy seen njëriñu ëllëg jërëjëf al imam kon ci Karam Touré xam naa des na ubbi ligne bi rek ci 33 976 09 09 akay kii ne da doon julli tisbaar daal di toogut ci rakkam ñaareel bi daal di jóg waaye ginnaaw bi itam mu julliwaat mu mu tariwaat sa kaw ñaareel ci ñaar rakk yu mujj itam mu tari fa ñaari saa euh, faatiha ko saar ca kaw nee na kooku lan mooy àtteem ndax day sujjóot na salaam wala qabla salaam day sujjóot. Ah, bu ma déggee li muy laaj mooy dafa yokk wàññi. dafa yokk wàññi waaw. dafa boole yokk ak wàññi. bu boole yokk ak wàññi nag. dañuy nootal wàññi. Mm-hmm. mooy sujjóot moom xabla salaam moo am ak baada salaam mm-hmm. Mm-hmm. ku yokk kese baada salaam lay sujjóot waaw ku wàññi kese xabla salaam lay sujjóot ku boole wàññi ak dolli it xabla salaam lay sujjóot ku moom wàññi na ñaareel bi jataay bu njëkk rakka yi yokk na béral fu ñu waroon yelu kon day sujjóot xabla salaam Euh, kii nee na ndax sañoon na concours ci alxuraan nga xam ne ñi bokk ñooy teg bu ku gagné daal di kii comme noonu ñu daan def ci <laughs> kii ndax loolu dagan na wala dagan loolu carte la imam Xasan saa boo xamee ne ñaar ñi fekk jogante bi mhm. ku ne day joxe dara ku raw jël mooy carte xëy na carte gi ñu xam mooy loolu yëpp mhm. doon na ki defal donte ay poti meew la donte ay poti meew la <laughs> donte ay keesi miskit la loolu mhm. carte la <laughs> li dagan daal mooy mhm. ñoom xasan am ay xalam yu ne fee bu bëgg ñu sawar bu mhm. génne téeméer wala ñaar téeméer ne gone yi kaay leen mhm. taril ma saar sàngam ku ci gën a wér la tar rek ma neexal ko ah. xale yooyu moom ñoom ñoom joxewuñ dara. ñoom joxewuñ dara mm-hmm, mm-hmm. dañoo baax yëpp ay fasak ay course yëpp mënees na ko ci. Mm-hmm. kii baax yooyu ngir eh, kenn ku ne joxe moom loolu mooy carte. carte la waaw daganul ci leneen daganul ci. Ah, euh, jongante bu alxuraan kii nii ndax euh, dana dagan ci naafila ci koo xam ne julli na gee ba noppi laata fajar ku xas ba julli déet witar witar bopp. xes na ba julli witër ndax sañ asmaan naafi xam nga dañuy wax ne xadis bi daa waxoon ne na ngeen def witër mooy seen mujj ki julli li gën mooy nit ki bu fekkee ne daa bëgg naafila ci guddi gi bu defee ay naafilaam bàyyi witër ba fajar bu fekkee ba yeewu ci guddi gi bu jullee ba noppi da mujje ko bu mooy li gën ba mu des koo xam ne xam na ne day biddanti leen lu bari kooku mën na bu jullee gee naafila daal di sax witar mhm. kooku la ñu waxee ne bu mu ci guddi gi bëgg julli sañ naa julliwaat maanaam a jiwaat. Hmm. waaye nag faa muy tarjuma. witar hmm. moom kenn du ko fi ñaaral ci guddi. li gën a nag hmm. waaye boo ko mu jël yow julliwaatee doo ñu dara. waaw na diggante witar ak eh, fajar mat naa leeral maanaam lan mooy fajar lan mooy julli ñu dañ koy jaawale ak it eh, nee na diggante bi ndax am na benn eh, diggante bu ñu xam wala boobu. xam nga fajar mooy mm-hmm. bu guddi gi jeexee waaw bu guddi gi jeexee la fajar di ñëw li ñuy tudde alfajaru sadiq mm-hmm. mooy fi ñu fi dal mm-hmm. eh, saa bu ñu fi ne mën wax ne fi nii six heures dix sept et dix huit dix neuf minutes xaaral ci dañu la dos salaatu xayru mina nawm bi foofu mooy guddi gi jeex na asamaan maanaam euh, suba tàmbali na foofu mooy waxtu suba mooy waxtu fajar Mm-hmm. jullik suba farata la jullik fajar nag naafila la mm-hmm. léeg-léeg nag dañuy jël tuuru fajar jublu ci suba mm-hmm. léeg-léeg ci téere yi ñu fekk na salaatul fajri fekk ñaar rakkay yi la jub maanaam ñaar rakkay farata yi su ko defee bu waxtu bi jotee rek foofu la waxtu fajar dañu bëgg ne kii njëkk a julli ñaar rakkay fajar door a julli suba bu dee ci jàkk nag jàkk moom dañoo bëgg bu ñu wootee néeg nit ñi xëy bu nodduka bi noddee Mm-hmm. man waa jàkk ji mën nañoo juboo ci loo xam ne ñe ñe wër jàkk ja xam nañ ka a gën a sori mm-hmm. loo xam ne bu noddoon mu nag mu doxee këram aksi mm-hmm. mën naa fekk julli gi ñu teg lu mel noonu fukki minute wala fukki minute ak juróom ginnaaw buñ noddee ci la ñu taxawal buñ ko xasee xam amul jafe-jafe imaam xam ko ñeneen ñi xam ko xam ne bu imaam am ay ngànt ba ñëwuti bu heure a loolu nag lu du jàggee ne ak charte la boo xam ne faaw dañ ne fa mm-hmm. yow mi ne sa kër moom. Mm-hmm. foo sëlmale sa ñaar rakkee fajar. Mm-hmm. jógal julli suba. ndax amuloo xaar yow. amuloo xaar amul amul différence. amul lu ñu naan saa boo jullee suba daa war a toog nangam minute door a julli saa boo jullee fajar da ngay toog nangam minute a julli suba. jàkka ji tax ñu koy def mooy dañuy xaar nit ñi. dañ leen a woo. ci xaar yi wuy jóg di waaj. bu waajee bi ñëw wuy si ñu ànd ñoom julli. moo tax fi ñu saaboo boo noddee rek daal di julli. déggu xikma gi da ci nodd hmm. nodd woote lu tax ñu naan nañ tax yëg ci kaw wala nañ takki rajo hmm. mu gën a xum moo ci gën hmm. dañoo bëgg nañu yëg ko waaj ñëw moo tax léeg-léeg imam Hasan ngeen a wax ci timis ñi nga xam ne fii dañuy jàpp ne fu nodd gi daanoo rek ñu taxawal li xaab waaw di woo nit ñoo xam ne na mu wóole la xaar lu mu jëriñ man nañoo wax ne kay li ñuy xaar ci timis mooy gën a gàtt waaw ndax bu dee ci masab Malik bi nga xam ne li ci lëng mooy waxtu timis Mm-hmm. waaye li muy yaatu di ko yaatu nee na mm-hmm. bu jant bi sowoon mm-hmm. na war la nga sangu fi sol sa yére ñu nodd liqaam julli waaw loolu mooy waxtu bi ñoom dañuy wax nag ne bu fekkoonte ne bi bi jant bi so fekk na nga matal sart yëpp sañ ngaa xaar lu toll noonu dooru julli kon waxuñu rek ne bu nodd gi daanoo dañu war a julli loolu kenn wax ko ci ngir wala barab yoo xam ne fukki minute ak nangam dañ koy xaar doo julli hmm. kon gàtt gàtt juróom minute wala juróom-ñaari minute hmm. waroon nañ di xaar ginnaaw bu ñu noddee bu dee ñi ñi ñi bëggoon a julli hmm. a yoo xam ne boo boo boo génnoon ci buntu kër boo xam ne matul deux matul cent mètres boo yeexee ñaar ak ay jëkk yaaw la loolu ñàkk dégg la woon. dafa naa ne nag nañ xam ne nodd woote la. ñi ngay woo boo leen négut kon loo di waaye. ñëw na nga xaar leen juróom minute juróom ñaari minute tërul nit waaw xaar juróom minute juróom ñaari minute mhm. bu dee yenn waxtu yi mën nañoo xaar lu gën a yàgg waxtu reer ndax nit ñi dañuy kii bu ko defee séeréer seeg ndaw ko nday <laughs> ñoom mën a mën a mën a ñëw tisbaar mhm. ba ñaar fukki minute su ko a ñëw ànd ak seen sago julli si waaw loolu yiw la moo tax am na barab yoo xam sax dañu loolu nangam yoon loolu ah. julli mhm. ngir rek di di woote ndax mbooloo moom gën a bari di gën a bari moo ci gën gën jërëjëf barakallah kii dafay laaj ne ne ku génne azaka ndax sañ na koo jox euh, rakkam joo xam ne dafa am borom kër ci ci borom kër ba ñàkk mu jox nga ne rakkam daal la ko jox mm-hmm. Mm-hmm. waaw xam nga moom mm-hmm. kii bañ mu jox ko ko mooy koo xam ne ak dund ak yow la war wala nga war lu te ñi sa ñi dund war nit rakkam wala ba nga bokk ci parce que bu fekkee ne amul ku ko yor yor bu doy borom këram bu fekkoon ne doy na. Mhm. am na woomal na. Mhm. kenn sañu ko jox asaka. Mhm. waaye ginnaaw borom kër woomalul nag. amul it amul faqiir la. faqiir la borom kër nekk faqiir. su nag jox ko sax bu fekkee ne yéen bokk fu ñu dëkk moo gën a jox ko jàmbur. ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne euh, boo saraxee nit sarax nga. waaye boo saraxee sa bokk saraxee nga jox ko mbokk. kon yiw ci ne woo xam ne mm-hmm. waa sax day gën la jox ko jàmm mm-hmm. xëy na fekk nag sart yi day ci ko ñu diggante bu soree boo xam ne fa mu nekk fi nga nekk ëpp na juróom-ñaar fukki kilomètre nangam mm-hmm. ndax tuxal asaka yëpp dañ koy tere loolu it bàyyi ko xel bu fekkee ne mbokk mi eh, sorewu la moom mën nañ koy jox asaka mbaa boog dangaa ne foo xam ne xëy na ña fa nekk ajowuñ ko waa say nañ ko tuxal waaye bu dul loolu rek asaka ci borom dëkk foofu lañ koy joxee laaj boobu daanaka xam nga ko tontuwaale ndax nit sañ naa jox azaka ku sori te fekk euh, ñi jege dañoo bañ a jël azaka ji bu fekkee ko bañ a kay moom xam ne benn dañ ko yeewut wala xëy na mm-hmm. soxlawuñ mm-hmm. waaw sañ ko yóbbu feneen mm-hmm. dañuy wax ne asaka boo ko doon tuxal di ko yóbbu feneen bu loo xam ne dañ koy paasal doo ko paasal ci asaka ndax alali fuqara yi moom wari su ko wari su ko wàññi kon bu fekkoon baytimaal am na na ko baytimaal fay bu amut nañ ko jaay mm-hmm. buñ dee ko foofa fañ ko war a joxe ñu jëndaat lu toll ne lañ jaayoon mm-hmm. parce que sax bu doon ak la wala dugub la mm-hmm. ñu ñu ñu bokk safa ci oto dañ ci fay fukki junni doo doo doo génn ci benn fukki junni ngir ngir fayal waaye da bu gis boo boo gis kenn mënu ko gàddu ngir yàlla da ngay jaay pep ma jël xaalis boo dikkee ko jëndaat ton tonnaa si tol noonu joxe ko bu ko matut it la a jëndal jënd ko ca. Mhm. waaw loolu la ñuy santaane. ci moom ci école yi lay wax xale bu ñenn yi fayeku nee ndax sañ nañoo fayeku koo xam ne comme élève boo xam ne daa ñëw ñu koy fayeku weer yoo xam ne fekk ko fi. xam nga ay jubóo la nit ki sañ na ne damay liggéey yi may jàngale. Mhm. njàng mi nag waxtu sàngam ba waxtu sàngam lay tàmbali. Mhm. diir bii nangam lañ ciy fay. ku ci xas dugg loolu ngay fay. ku ku tardé nga xam ne yaa yaa def la tax nga tardé du école bi moo la gàllankoor ba ñëwoo. Mm-hmm. waaye sa yëfi bopp la wala sa jafe-jafe bopp la ba du ñëwoo. Mm-hmm. ñoom sañ nañ ne ku fi ñëw li ñu fay. Mm-hmm. ndax force kenn li mu gi saatam ne lii la ndax nit ki mën di ko am loolu mën naa bañ a feeñ ci jàng ba tey gis ku tardé ba noppi buñ defee sax mën a xaraw kooku boo ne woon fayuwuma la la te day mel ne kayit woowu ak résultat boobu ngay am ci mujj gi moo ëmb mooy meññatum liggéey bépp te moom day mel ne meññam ngi doon la soxla la kon bu fekkee ne dañ ko dañ ko dañ ne daa daa dafa yéex a ñëw tax fay fay wuñ ko la mhm. moo ki fi ñëw tàmbalee mhm. ba pare bokk luñ génne mhm. loolu day mel ne maanaam amul ndax ñaari ñu mel noonu it léegi lañ ñu dabaatal ñëw dabaatal yi weesu woon ci ay muraajaat ak yeneen kon dama jàpp ne ay jubóo la. ay jubóo la daal bu fekkee daal école ki jàngal sañ nga sama dirasé bi weer sàngam weer sàngam lay tàmbale. juróom-ñeent jëlu mu ay xaaju weer. Mm-hmm. at mi lay jàngale. Mm-hmm. ku ñëw ci njëlbéen bi ku ñëw ci ñu gannaaw ñetti weer ñoo am at. Mm-hmm. lii daal lay fayee ko ci njàng mi. ixtibaar bi muy def daal bala nga cee dugg. da nga fay lii. waaw ndax boo ci duggee bu amee da nga am lii. waaye nag bala nga cee dugg lii ngay fay. ñaar sax ñi koy def moom bu dee ku bees moom duñ ko fayee ku weesu. tey koo xam dafay ñëwoon day mel ni place am dañ koo xaj maanaam dañ ko koo dañ ko koo bàyyi. même même kenn du ko ne fees am na koo xam ne bu ñëwee tey bees dañ ko naan euh, daara ji fees na. Euh, am na ñu moom man dugg ñu wax ne moom moo tee ñu dugg. ok xam na am na ku ku fi ku fi nekkoon te daan jàng moom keroog place am saa bu ñuy mën na ko jël. su toogoon juróom-ñaari weer su ñëwee. dañ koy dañ dañ koy dañ koy jël ndax dañoo jàppoon na yow dañuy def lenn. nit koo xam ne dafa ñëw bëgg nekk candidat libre. Mm-hmm. dañ koy fayuloo. ok at mi. Mm-hmm. mooy li ma wax ne examen bi ngay ngay wax ne ku ci bokk. xaw mm-hmm. nga fay lii. ok diggante faaw nga fay. juróom-ñeenti weer ak inscription. ok ok loolu nit ci cib liggéeyam sañ na ko def. sañ na ko def su ko defee nag ku ku nangu. ab sart la al muslimun ala surati. ku nangu nag bu ko neexee ne man. waaw du ma du ma fay waaye du ma jàng si ko. waaw daal dem feneen dem feneen. waaye lii moom kër jaabur la ay sart la daal. waaw waxe bu jubóo la. ok jërëjëf kii nee na waa ji dafa faatu bàyyi yaay mbokk mu mbokkal ndey ak baay. ak baay ak ak ak ku bokk uh, baayam ndey ak baay ak ku bokk baayam baay uh, nee na nee na uh, ndey la bàyyi mm-hmm. ak mbokk mbokk ak ak ak am lil ab mm-hmm. ak amam ashiqa waaw ndey jëm Euh, ki mbokkal ndey ak baay mm-hmm. mooy moom genn wàllu ard ji mm-hmm. kooku buñ ko defee mm-hmm. fukki cër wala boog juróom benn cër juróom benn cër dañuy xaj alal ji bu juróom benn million masalan waaw su dañuy jox yaay ji ñaari million loolu mooy sulus jox mbokk mi hmm. ki mbokkal ndey baay ku jigéen ñetti million hmm. mooy nisf benn bi ci des ki mbokkal ndey baay am waaye taxam bi mbokkal ndey baay ku jigéen mbokkal baay kese dañ koy xaj bu du bokk ci miraas bi ndax hmm. amun shaqiq bu fi nekkee amun li ab doon bu ñu dee bu ñu dee ay ñu mbokkal ndey baay dañ leen koy sédd la waaw bu dee kenn moo ko jël bu ñu booloo dañ koy séddoo waaw bu dee waaw góor ak jigéen nañ koy séddoo góor ñaar jigéen rek. Euh, euh, jigéen amu fi. Hmm. amul jigéen ñu def. ok euh, barakallah xam naa léegi ñu ubbi ligne bi si 33 976 09 09 imaam kii ne ndax benn imaam mën naa julli mën naa jiite ñaari julli wala sax mën naa julli jiite ñaari ajjuma. jiite ñaari ajjuma. Mm-hmm. ah julli ajuma ñaari yoon. maanaam xam naa daa jublu dem jàkka ji jiite fa demaat bi xam naa dem feneen foo xam ne sorewut ñu ne bu kaay jiitewaatal ma. waaw xam nga ci mazhabu bu mm-hmm. fa farata boo ko jullee ba noppi. Mm-hmm. ko jiite keneen. yow boo ko xasee julli. farata wàcc na la boo koy julliwaat naafila la. te yëpp jullig mbooloo ci mazhabu Malik kenn du ko def ñaari yoon. naa julli julli farata mhm. boo ko jullee julli mbooloo mhm. doo ko julli ñaari yoon masala kiñ maye mooy ku julli woon moom kenn tis baar jot nga julli yow kenn ginnaaw mhm. bi nga gis mbooloo muy julli mën ngaa ñëw ngir am nga neelul mbooloo waaye nag suba waay dootu nekk imam ndax yow julleetoo farata julli nga farata ci par pàcc la kon ajjuma nag julli mbooloo la moom nit ki bu ko xasee julli ba noppi. am na ngëneelu mbooloo. Mm-hmm. kooku nag julli rafet na dagan ci moom. ndax ñu mu jiite woon moom ci waxum julli ak daganut. Mm-hmm. waaye ñu mu jiite it seen julli baaxul. ci wasa bu Malick. ok jërëjëf barakallah kii da bayit lay firi moom. mais ida ata ruuxul ilahu baadahu ka naslihi almahdiyu yaqfu rushdahu waajahtukum bilxaqi za nasiha man rabda xaqan baa bilfadiha waaw xam nga bayit yooyu day mi ngi ci laysal birru xasida gi sëriñ bi tënkee laysal birru aaya boobu mm-hmm. dafa mel ni al yahud wan nasaara la sëñ bi waxal mm-hmm. dañu wax yàlla mm-hmm. def yoon mu ñëw di mott li si risaalaat ak nubuwaat ji ko jiitu la waxe bana nag Aysa bu del si waatee yàq foo rusdan nabi alayhi salaam Aysa moo ko dana ñëwaat waaye bu ñëwaat nag du ñëw indi charia boppam ci yoonu Yunusa bu dëkkee ci lay àtte nit naka noonu sëtub yonent bi nga xam ne moo lay wax Mahdi xam ne bokk na ci sëtu yonent bokk na ñëw mujj jamono it bu mm-hmm. dëkkee it ci ngirum mm-hmm. ah. leen ci soññi leen leen li ngeen nekk du dus mm-hmm. ñëw leen doon ay jullit bu ngeen bëggee mucc xamal leen ay saa ci boppam bu dee si waatit ci yoonu yonent saam lay nekk Mahdi yi noonu mais nag jëmale naa ci yéen jëmale naa ci yéen ay labiré waaye ne li mu leen wax li mu leen wax lépp ak labiré la waaw bu ngeen ko jëlee jariñu ak dëgg na ku ko bañ mhm. gàcce moo fekk dëgg la masha kon xam naa mbokk yi foofu lañuy euh, laaj yi tey yam di leen nuyu baax di leen ziara di rafet lu ànd bu baax a baax di nuyu sëñ Abdoulaye Sall ci technique bi ak sëñ Alaaji Ñang bu baax a baax di leen nuyu di nuyu auditeurs yi kon jërëjëf al imam ñu lay nuyu baax di leen ziara kon ñu jël xam naa ba beneen yoon 33 976 09 09. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw bisimilah. ñu lay ziar baax. Mm-hmm. ah kay jërëjëf jërëjëf. waaw man dama doon laaj tey ku